waxoon na ne dana jël décision ci première mars ngir wàññi location bi ci décision boobu boobule nag gis-gis bi wute na fii ci géejuwaay ndaw si nekk locataire di rafetlu décision bi. te kontaan laa ci am. parce que location dafa métti xam nga yor njaboot nekk ci location war a lekk war a naan wala fay courant wala fay ndox yëpp dafa métti moo tax bu ñu appliqué ne nañ du yokk dañ wàññi location bi dañ ciy am kontaan bu baax a baax. moom nag bokkul gis-gis ak borom kër gi mu jàpp ne mbir mi du mujjee fenn. du yomb et puis yaakaaruma mu am suivi quoi parce que amoon na fi bon amul suivi. buñ toogee ba tey ñu tëggaat ko it pour man même chose mooy répété waat quoi. wàññite location bi mu nekk li nga xamante ne jafe na lool li ko waral moo di intrant de construction yi. ndax tabax bi dafa métti xeer bi béton bi ah, xeer bi ciment bi suuf si lépp problème la ak ciment bi yooyu moom boo ko naree def nit ki fekk defar këram ba mu jekk nekk dañ ko. góomu moom mu yomb moom. ci loolee nguur gi ñu ngi koy dànkaafu mu xoolaat politique ci wàllu logement sociaux yi. SICAP amoon na fi HLM amoon na fi booba da ngay fayeeku vingt mille francs nga dem bindu SICAP di verser deux mille trois mille par mois saa yoo mëtalee ñu ne la sa gàll sa kër ngi nii ñu ci bari Dakar ñu nekk HLM. ak yeneen ak yeneen noonu la ñu amee ay kër politique boobu la ñu war a delluwaat. ci fàttali bi mooy énième dogal bi nga xamante ne nguur gi jàpp naa ko ngir wàññi location bi ngi xar rek ba xam décision bi danañ ko appliquer.